deux mille dix huit deux mille vingt trois ba deux mille vingt Macky Sall doxal na ko aujourd'hui aujourd'hui dans nos laboratoires le PSE 3 à sortir et qui va gouverner le Sénégal 2024 2028 donc ñun e on attend sur du PSE notre ah, projet politique vraiment nag projet e politique pare na ah, ñor na loolu du PSE1 une bye continuation bye de la deuxième phase loolu la ñuy continuer ci troisième phase ci quatrième phase loolu mooy yóbbu Sénégal ci émergence deux mille trente cinq mais ñi nga xam ne nii si mbedd bi lañ nekk nekk ñu si bureau yi di wax euh, euh, xamuñu euh, trois cent candidats yi may dégg musuñoo nekk chef de bureau wala chef de division xamuñu nu état di doxee loolu je pense qu'il faut qu'on règle ce problème définitivement dans le pays et qu'on mette le pays au travail il y a des enjeux gis Sénégal mu toll ci développement c'est un enjeu de développement am na waxu politique yu ñàkk fayda yoo xam ne nii amul sens aujourd'hui on doit discuter des grandes questions sur les questions de jeunesse sur les questions sur les questions d'emploi sur les questions comment naka la ñuy ñagee suñu dëkk loolu moo fi nekk te loolu nag sama gars yi Serigne Saliou ñi muy jàppale ñooñu. ah, ah kon li ñu bëgg Aïssatou mars mars <laughs> président de la république Macky saaga xas loolu nag il mu dañ Sénégal. waaw man moom <laughs> mm. man moom nee na euh, xam mu wax fii yëpp day communication rek communication. waaw Aïssatou xam nga nag tontuwuma la sànq. xam nga yaa ngi ubbi aussi man waxuma ak yow. man Sénégal yaa wax non rek non damay wax. non dafa na non dafa na Aïssatou nekkuñu fees su fees dafa na yow <laughs> da sa entrée ci mën nga commencer. <laughs> tontuwuma la eh, invité invité je suis pas chroniqueur je suis invité. waaw tu es invité. invité kese waaw da ngay wax sa xalaat waaw sa xalaat mais justement sa xalaat laa wax. waaw communication. pas pas si qualifié non. non yow mais je suis là pour communiquer pour mon camp. attends nee na non non xafoor. mais attends Aïssa nee na da laa invité comme personne ressource. non pour yow yow normalement. en tant que DG tu es censé. non faire partie quand même premier carré. non ñu xam information nee na question bu simple la. non ndax xam ngeen seen candidat mais nee ko waaw wala déet parce que tu n'oses pas. mais suñu candidat. la wax xamoo candidat bi. man ba ma xamee xaw ma ko. xaw ma na xaw naa ko xaw lu may wax fii. xamoo ko mënoo maa la amul amul ma ne mais je suis pas venu sax ma ne léegi moom ci pro après bugg naa ñëw ci profit ñu wax <laughs> moom kan la ci moom kan la. kan la ci loolu yéen di ngeen ci tontu. kan la ngeen gis. léegi man man man euh, nee ne euh, dama dama mënul gëm. Mhm. ne président Macky Sall euh, ba mu xamee ne du dem te amul ko mu xalaat man mënu ko kenn mënu ko gëm parce que dëgg la euh, un pays, ça n'a rien à voir avec une entreprise privée. Mais euh, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais quand même, dafa ku yor ku nekk ci da lii moomu ko waaye jàpp naa ne euh, c'est dafa am loo xam ne pour man logique la quoi Macky mu xamee ne du bokkaat du présenté wu immédiatement après xalaat na kan la fiy teg hmm. laaj bi mooy à quel moment la xam ne la ndongo du dem parce que man gëm naa ne te wax naa ko fu ne man gëm naa ne président bëggoon na dem lu tax demul loolu soxlawu tamit ñu nekk ay Sherlock Holmes wala ay Colombo pour xam situation bi moo favorable te wax naa fii la dernière fois que mënoon naa forcer comme ñun africain nu ñu yàgg baatalee dañoo bëgg nguur bëgg nguuru moom forcé wul léegi nag raison pour euh, <laughs> raison boobu moo tax ma ni la xam na kan la fi bëgg a teg problème bi nag mooy li ñu nekk nii on avait dit vendredi on est vendredi man dama jàpp ne. kan moo la wax vendredi. ah ñun de. ku la wax vendredi. waaw defal naa da nga dégg Macky Sall mu wax ko si. laam waxu ko waaye waxuloon na ko ay nit a weddiwu ko. waxuloon na ko ay nit a weddiwu ko. mais lu muy weddi. espèce task force yooyu def naa ci. Macky Sall Macky Sall da nga def lu nga. waxuloon na ko ay nit a weddiwu ko ñu wax la vendredi. Macky Sall ne la vendredi. mais mais xafoor sénégalais nga yow. Ah, donc alors sénégalais nga. non non non il faut que ñu ne woon na vendredi. non dama ne personne ma ne la vendredi la fi joxe woon rendez-vous. aucune voix officielle. ñun daal li nga xam mooy weddi moo consent mm. weddiwul nekk vendredi donc ba ñu waxee vendredi waxkatam yi dont toi kenn weddi kenn musul wax vendredi non non non Macky Sall bëri na ay wat ak ay répondeur automatique lu ko fi nit waxal te du dëgg auto ma waxkat yi jóg téye micro yu woote weddi. ñoo xëy bind ko weddi wuñu ko mais mën na ko weddi mais lu ñuy weddi mais est-ce que journaux c'est la bible. mais li ngeen di xëy li ngeen di xëy di wax suba ba ngoon te du dëgg. lii journaux yi di xëy di suba ba ngoon. d'accord foo yàq sama argumentaire. bàyyi ko mu yeggali xafoor man de bàyyi provocation bi. non bu yàqamti ma yow maa ngi ñëw bu yàqamti maa ngi ñëw si yow. da nga bëgg xam naa ko waaye fi nga may fekk. léegi <laughs> non non non non non non fi ngay xafoor man ak yow on se sait. Ah, on se sait xaaral tuuti léegi na ne problème bi mooy lu tax ba léegi nii Macky Sall waxagul waxagul mooy li ngay li ngay gis nii président Macky Sall damaa jàpp ne ki mu bëgg a teg fii a ñemeegul wax ay ñoñom euh, man yàgg naa wax ci yeneen ba may def jàngat TFM waxoon naa fii ne président Macky Sall mu gën a mën ci àddina mooy ëffal du xeex ëffal la mën du àtte xeex donc tey euh, pression lay subir xam nga nag loolu tamit man jàpp naa ne c'est pas une bonne chose ci euh, man bëgg naa kilifa boo ne ni ndax lu tax ñu ne kilifa kilifa mooy koo xam ni bu jël décision jotee nga jël décision ñun fii lu yu bëri yu ñuy dal fii Sénégal c'est parce que président Macky Sall moo war a jël décision du ko jël actuellement nii nag ñi nga xam ne xam nañ ko ñu nekk ci partem xam ko ñi ngi tëgg sabar di def dakaanu door paa di ko pression ñemewul wax ñàkk ñemee wax moo tax partem dina dans tous les cas président ñemewul wax non ñemewul wax parce que xam nga nende li gën a simple mooy mm. yow moom na moom président Macky Sall xam na kan la si bëgg a teg xam na ko léegi son problème mooy comment le faire gober aux autres mais est-ce que c'est obligé euh, euh, si Sall wax na dara nee Euh, su ma juumlee nee na c'est pas au président Macky Sall de choisir mais sëñ Sall foofu xam nga lan la ngee fàtte dama la koy rappeler mooy dans une vie vraiment magnifique moderne tout ce que tu veux normalement en France kenn imaginer wul benn leader de parti naa ni ngi rek xaatuñu ko bu fàtte ne suñu parti politique yi dañuy fonctionner comme ay propriété comme ay entreprise privée. loolu mooy comme fii seen TV bu gaan bu ko neexee demandé wul avis kenn dina général adjoint ku kan moo ci mën dara. Mm. kenn mënu ci tous. Macky Sall xëy suma jël ci xafoor dugal ko ci benn benn directeur général kan la laaj avis am laajtewul kenn chaque jour nit ñaa ngi toog jonko di xaar décision bi génn conseil des ministres mais ñun actuellement loolu la ñuy tamit maintenant moom xam na ki mu bëggal pression yaa ngi dem chaque jour kenn génn ne candidat la mais chaque jour aussi tu lis les coupures de presse looy dégg oui jàkkaarloo nag ak Abdoulaye Daouda Diallo naa leen waaw ah léegi yéen euh, est-ce que di sama xam nga yooyu pour moi lii vaudeville la boo xam ne. Mm-hmm. ñun jaruñu ko sànq wax nga lu am solo. nee nga il nous reste six mois xam nga nag wax dëgg yàlla pour un parti politique sérieux pour un parti politique sérieux wax dëgg fa yàlla il faut qu'on il faut qu'on siffle la fin de la récréation lii du examen du bac. Mm-hmm. il faut ñu respecter xale yi def bac ak BFEM. fii lan la ay ma ay mag ñoo fi nekk ñoom ñoo bëgg a jiite ñoom ñoo bëgg a téye fromage bi ku nekk bëgg a Sénégal fromage gruyère xam ne ku nekk bëgg a dagg di benn sàq mi lekk dem mu jaal dërëf président moo yor gata bu mag bi moo ko yor mais le président avait vu juste bi mu waxee woon du du du malheureusement fi ñu toll nii day man parce qu'on l'a vu après ce qui s'est passé ku nekk ngi déclaré sa sa candidature non ci déclaration candidature dafa am ñoo xam ne ñu yebaate nag ñoo xam ne nii ñu ñu ñu ñu ñu ñu jara woo ci ruq peslee ah bon xam nga yooyu mooy li ma waxoon fee. Mm. ñun ñaari nit lañ ñun Sénégal ñaari nit la war a mere Macky Sall ak Ousmane Sonko. Macky Sall yàq institution yi ndax tey jii dof ku jóg laalo nañu ma baal maanaam dof balaa en ce moment la ñu doon dama dama pes mais vraiment ku jóg. Eh, eh, ah, <laughs> et il est candidat hein. il est candidat. il est candidat. il est naa benn artiste jigéen. un bon profil d'ailleurs nee candidat déjà liste bi ay déjà 37 personnes te des na waaw 37 37 mais la semaine prochaine alors moi je suis candidate aussi. non je suis non mais non non non je dis la semaine prochaine Aïssatou Diop Fall candidate à l'élection présidentielle du Sénégal mais non c'est ça parce que ñun ñëpp ak lu weesuwul loolu mais Macky Sall ñun vraiment Macky Sall mi ngi bëgg a sonal tamit Macky Sall mi ngi bëgg a sonal lii nag xarit daf yónnee ko ko. sama li wax sama wax ji naka xale yi dagg ñoo nekkoo Macky Sonko mi ngi ñuy sonal ñun Sénégal dañoo sonn Sonko bu jógee laay fettuñu woote garsa garsa Macky Sall tool fee moo gën a xam kan la bëgg a tudd ñamee ko wax ñii di jóg di tëb di périer di écarté boo ñu tuddee ñu génn mais ñu fan lañu mais mais mais mais mais mais nee na jàll si leneen mais mais à son candidat Diazaka non boobu nag boobu franchement Diazaka non non non honnêtement Maam Góor sama xel mais les gens aussi de déclarer leur candidature oui, ils ont le droit. mais mais mais mais mais en tout cas non non bàyyi ma bàyyi ma non mais mais mais il faut mais il faut ça sérieux. Macky Sall na na na na jox waa ñoom Abdou communiqué Aïssatou 60 millions aussi. Hein? il faut nga dugal 60 millions foog nga. 60 millions c'est pas grave 60 millions. Omar Faye va va gérer.